gàmm gii ñuy waajal tim bu dugutoon nag liggéeyal diine sax gàmm goo xam ne boo ko ubbee àddina yépp di paas pour ñëw sa dëkk xam nañ ne tourisme religieux la boo xam ne ku amutoon kuy ñëw di seet si sa dëkk yaa ngi saxal ay mbir di def ay plan pour nit ñi di ñëw ñun nag defuñ plan pour nit ñi di ñëw nit ñi ñoo wax ne ñi ngi ñëw kon ñuy def plan pour ñuy ñëw ñu tatagal la ni mu gën a rafetee bi gën a màgg ci xéewal bu doomi aadama mas am muy juddu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moom la ñuy feetu moo waral yëngatu bi moo waral yi ñuy def ni yépp te bépp xéewal buñ am ci àddina ci àllaaxira ñu ngi ko jëlee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li xew ci sous-région bi ñun ñëpp gis nañ kenn réereetul ko tey jii dëkk yu bari kenn mënatu faa gàmmu guddi kon ñuy gàmmu guddi ba léegi li waral loolu mooy jàngale yi nga xam ne moom la ñuy mag ñi bàyyi fii jàngale yooyu nga xam ne Cheikh Ibrahim radiyallahu ak jàngaleem ràññeeku na ci ràññeeku boo xam ne àddina bi yépp xamee nañ ko àddina bi yépp ku nekk yaa ngi jugee ci dëkk boo xam ne yaa ngi ko bàyyi ay boroom xam-xam maa ngi wax sànq ne am na ñoo xam ne xam nañ alquran xam nañ sunna mën nañoo jàngal seen bopp siirat nabi sallallahu alayhi wa waaye ñëw dundee ko ci dégg rek Cheikh Ibrahim radiyallahu beneen cax nga lay def ci ñoom loolu tax nit ñi am itte pour ñëw pour dundal gàmmu googu nga xam ne dëgg-dëgg bëri na lu baax lu nekkee tey jii luñ xam ak luñ xamut sababoo na ci bés yooyu Cheikh Ibrahim dafa wax ne mas sa ñaan yàlla dara ci guddi gi nga xam ne ci la yonent bi juddu sallallahu alayhi wa lu ma yàlla may na ko barke boobu mu nga des foofu ba léegi ku fa ñëw daajee kilifa yi wala nga ñëw dund loolu donte yaa ko dund yow ci sa benn koñ demaat barke boobu yàlla dana la ko defal te barke boobu yàlla dana ko diri seen maanaam ci Sénégal yépp ndax yonent bi mooy yërmaande yàlla ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yërmaande googu ñi gëm ak ñi gëmut ñépp ñu ngi ciy dund lépp luñ mën a def nag pour delluwaat ci jàngale yooyu te école yi Cheikh Ibrahim radiallahu anhu du dara lu may delloo nit ñi ci jàngale yonent bi in tasaluuni an wa mazhabi jawaabi rasulullah xiina ujibu bu ngeen ma laajee kan mooy sama soppe benn soppe laa am mooy yonent bi sallallahu alayhi bu ngeen ma laajee ban yoon mooy sama yoon benn yoon laa am mooy yoonu yonent bi sallallahu alayhi kon du dara lu may bés loo xam ne dañ ciy delluwaat pour renforcer suñu bëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ciy delluwaat pour valeur yi nga xam ne nii moom la ñuy yonent bi sallallahu alayhi wasallam indil dara dara gënu cee màgg jikko ju rafet kon bu ñuy gàmmu nañ fàttaliku ne mooy delluwaat ci jikko yu rafet yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne aqrabukum ilayya majlisan yowma alqiyaamati axaasinukum axlaaqan ñi ma gën a jege ci yéen jotaay yowma alqiyaama mooy ñi gën a rafet jikko ci yéen yal nañ jàmm ci jàmm génn ci jàmm muy gàmm goo xam ne tamit delloo jàmm ci Sénégal ñu ngi ñaanal président de la yàlla dimbale ko ba nga xam ne mu ngi téena Sénégal ci jàmm yàlla na ko bàyyi ci jàmm te loxo yuy jëlaat Sénégal nun mën a mel rek yàlla nañu àgg ci man li nga xam ne président Macky Sall mu ko def ci garde Sénégal ci garde jàmmam ci garde mbokkoo gi ci garde bennoo bi ba nga xam ne day continuer jëm ci kanam bu ñëw guddal ndax jotaay bi yàgg na salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu gàmm ci dafay indi euh, xañ na wàllu inondation wàllu jafe-jafe ci dem beeg dikk bi ci yoon yi loolu nag service su état bi war ci am taxawaay taxawaay boobuñ ci war a am moo waral muy service su état yi ONAS muy DPGI muy brigade nationale des sapeurs pompiers ku ci nekk jotoon diggal ngir ànd ak yéen liggéey fexe ba yéwénal oyofal li nga xamante ni moom mooy li ñu war a fekki fekkee ci fan yu néew bu soobee suñu borom muy gàmmu bi loolu moo waral ci domaine assainissement bi gën a am solo ci période bi ñu nekk ci évacuation eau ñu insister ci alimentation en eau mooy ndox mi ñuy naan tamit am na njariñ am njariñ boo xamante ni il fallait que ñu xool ginnaaw effort yi état bi def ak SONES ak Sen'Eau ak OFOR pour fexe ba ndox mi doy ñu am beneen cadeau bu ci dolliku bàyyee ko ci président de la république son excellence Macky Sall mu joxe ndigal ni nañu jël ay citernes trent mille litres indi ko ci Medina Baye kon su ma xoolee domaine yi intéressé gàmmu gi yëpp ba ci ñuy war a jóge bitim réew oyofal ak yombal yi ñu leen war a defal ci wàllu immigration waaye tamit ci wàllu tali bi diggante seen diggante ak douane su dee ci wàllu waañ bi si matt yi ñu war a jëlee ci yenn gox yi ak autorisation yi ci war a bàyyeekoo yooyu yëpp buñ ko xoolee jëlal nañu lu ëpp ñetti waxtu waaye jaroon na ko te ëppoon naa bañ a def ndaxte liñ ci jublu du lenn lu dul ñiy ñëw ci gàmmu gi mu nekk gàmmu goo xamante ni du am coono wala coono bi bokk du bari ñëfa fa dëkkit mën a euh, yaatal gan yi ba liñ ci séntu yëpp. ci mën a am euh, mën ko teewee ci danuk bakken mën ci jàmm yàlla ni nga xamante ni noonu la ko cheikh al islam cheikh ibrahim daan defee ñi fa dëkk di berndeel gan yi nañ ko baaxoo di defee ñu mën koo def ba yàlla dimbali ñu ba ca gàmmuwaat ba buñ ko weesoo tamit ñu gis ni liñ ci xalaatoon ak di ko euh, séntu yëpp ci organisation yàlla dimbali nañ ba li ci ëpp bu lépp matul it li ci ëpp ñu matale ko ndaxte def mu jub wala wax mu jub loolu yàlla rek moo ko yeyoo waaye jàmm bi li mu am mooy góorgóorlu def kenn kàttanam ba noppi rafet ci njort ndax ki ñu sàkk binduñu boole ñu moom moo ñu ko digal te sañu ñu koo bañ mooy rafet njort ci lépp lu ñuy dugg loolu mooy li nga xam ni bëggoon naa ko séddoo ak yéen ginnaaw bi ñu defee réunion bi di wax gouverneur moom mooy ki jiite administration bi ci wàllu région bi lépp luy coordination ci moom lay aju li ma koy jox comme instruction ci kàddu ak ci ndigalu son excellence monsieur le président la république Macky Sall mooy mu topp suivi bi ba ñu yegg ci bis bi na ko daan defee te mu mate ko lool tamit euh, ba bu soobee yàlla bu ñu dajewaatee ñu gis ni la ñu sumboon ci at yi weesu jàll nañ ko ndax dama kontaan sànq bi ñu toogee ci biir ñu gis ni li ñu fi waxoon daaw ci wàllu tali Ageroute waroon ko defar amoon ay problème évacuation d'eau ren kenn waxu ko fi kon li ñu fi wax ren it liñ ci war a lijjanti fii ak ñu yegg ci gàmmu nañ ko lijjanti waaye bu daje bu mel ni amaatee déwén problème yi ñu évoqué woon nañ ko dépassé te loolu mooy lii rôlu état mooy problème bu posé wu nañu fexe ba amal ko solution ba bu ñu dajewaatee beneen problème la ñuy wax problème nag du ñàkk ci àdduna te problème boo réglé rek dina am beneen bu bees bu ñëw taxaw ci sa kanam mais li ñuy jànkonteel nay doon problème yoo xam ne duy ñëwaat tout le temps nañ koy dépassé di am yeneen défi yeneen challenge ak yeneen problème pour le bonheur des populations xam naa loolu mooy li ma bëggoon a wax sëriñ bi di sant bu baax ci donc voilà un guide voilà un chef voilà un père spirituel boo xam ne bi mu waree taxaw wax wax na ko te jublu ci lenn lu dul tout temps donnant d'ailleurs moom jëmmi boppam mu nangoo sacrifié uniquement pour luy jariñ réew mi réew nag dafa bindoo loo xamante ni ñi xam la plupart du temps du ñuy wax te demoon nañ ba yegg ci jamono boo xamante ni ñi xam danañuy hésiter di wax te dara waralu ko woon ndax boo waxee ñu wax la lu boo waxee ñu euh, dëkkal la foo dëkkul boo waxee ñu nekk ci sa der pendant une semaine wala pendant un mois wala pendant deux mois yaakaar ni singili boobu ñu lay singili ak song boobu ñu lay song wax la lu ñaaw wax la ay wax yu teggi noonu dëkkal la foo dëkkul tax ba ñenn ñi xam ragal a wax wala ñu ni sax bu ñu ragalul wax it am nañu njaboot te bëgguñu seen njaboot dajee ak njabootu keneen moo tax ñu ni nañu dis nañu jël choix ba bañ a wax mais bii ñu tollee ci mu war a jël position ñu koy sant di ko gërëm Serigne Cheikh Mahi Niass dafa wax ni xam naa sax dinañ ma wax naka sa du noonu waaye man dinaa ko wax man nag li may invité boroom xam-xam yu mel ak nit yi yarkat yu mel ni ak nitu daara yu mel ni yéen nature dafa am horreur ju jiit fi ne bu fekkente ni ñi war a wax waxuñu ñi warul wax ñooy amee réseaux sociaux yi amee télé yi amee rajo yi te nit ni ko yàlla bindee day toppandoo su fekkente ni dafay dégg saa su nekk bu tijjee téléphone kuy saaga am ñu koy tàcc day yaakaar ni saaga moo gën ci àdduna bu fekkente ni saa yu tijjee téléphone dégg ku koy wax ni ko na nga yiw na nga wax lu rafet na nga wax lu baax na nga fexe ba respecté ku la mag ku la ku la féete ndaw na ngi ko yërëm kooku bu koy dégg saa su nekk su gisee mag da koy jox cër bu gisee ndaw da koy yërëm te dafay respecté boppam jox boppam cër léegi bu fekkente ni ñi war a waxuñu ñi waruloo wax amee télé yi amee rajo yi amee réseaux sociaux yi fexe dugal ci boppu nit ñi ak xolu nit yi lu ñaaw ñëpp dañuy dem ci direction boobu or li ngeen am ci seen macha allah bopp ak seen dënn ci xam-xam ak ci expérience. il faut que ñu koy partager ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a nekk jeune ak ñun ñi ñëpp ñu koy partager ak ñun pour que ñu mën ko jariñoo parce que suñu réew loolu la soxla li mu soxla mooy ñu sukkandiku ci ay valeur yu wóor a wóor dafa am lu ma mës a dégg xam naa ni foofu lay daaneele euh, ci pays yu bàyyi dégg naa nit du fa saaga amul saaga ma am sama benn xarit bu mës a nettali ni pour wax yar nan laa amee solo ak li ngay dégtal sa njaboot nu mu amee solo ak li ngay wax ci sa kanamu njaboot ni mu amee solo ak li ngay wax ay nit di la déglu ni mu amee solo am kenn ku ñëw di waxtaan ak bàyyi xam naa yéen a may gën a néew xisa bi di ko wax ni ko man de dama xamul lan mooy waral nit ñi di saaga wala di wax lu ñaaw ak yooyu bàyyi woo benn xale ci kër gi ni ko saagaal bi nga ko nee saagaal comme kooku musul dégg saaga xamul luy saaga mu naan saaga saaga saaga. donc xamul luy saaga pour wax ni dafa am solo ñi war a wax ak ñi xam di wax bañ a bàyyi nit ñi nga xamante ni li ñuy wax xamuñu ci dara bëgg a réeral dañu réer d'abord bëgg a réeral ñeneen nit ñi kon kër diine yépp man lu ma leen di invité kër diine yépp lu ma leen di ñan kër diine yépp lu ñu leen di euh, yalwaan mooy saa yu ñu waree wax nañu wax ndax lii rôlu état bi mooy taxaw ci ku nekk lii sa àq ak sa yelleef nga jot ko insha allahu yi dinañ ko def loolu moo doon wax ji asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu